bismillaahi may bëgga way seydina limaamu te way roowalaay saaku ka way am ngërëm fa jannate mënu saxit ne bismillaahi may bëgga way seydina limaamu te way jannati Muhammadu Saxir ne roolaay wasiiru limaam maxfiyun la ñëw na ba way gaaya doora lan tumbiram yaxsafo asaarate baayu siri Abdoulaay roolaay wasiiru limaam maam li maamu laay dani woon waaw waaw jaamu leen bu leen defi noon dimbalante kon lu ñaan dina am bi surate bilaay booya boo teral fa nu jëm fu nu waa caam danu ndaam ñu ni boole yaay ngalam tey xayaa bilaay walaay sidiro walaay kula way am ngërëm fajaay walaay sidiro walaay kula am ngërëm bilaay walaay sidiro walaay kula way am ngërëm fajaay walaay sidiro walaay kula way am ngërëm bilaay fi jaloore ma dem wasul kilaay walaay sidira walaay sidira bilaay walaay boo ñëwee ba naa ko ma dey boo ñëwee ba naa ko ma dey dama def lu ñëpp ñu cëy dala naan bul jaaxati tey dal di faje saa bilaay walaay bàyyi Abdoulaye sidira bilaay boo ñëwee di laaj si ndigal boo ñëwee di laaj si ndigal sëy di joxu la gën gi ndigal boo jëfee la njool ma digal doo fa jóo di laaj walaay laay Abdoulaye sëy de am garam laay walaay waaja ñëw ba laaj si ndigal waaja ñëw ba laaj si ndigal kooku dootul jóg si mbugal dootul am bilaay walaay bay Abdoulaye Sylla am na fa jannate sant leen jëlilo limaamu mooy rosoolo waaw janta feeñ nu doy la yonen ba moo di di roy ci Seydi Baay Laay bàyyi leen di xaaraan tam sa doom lu dul jeex bu bëggee nga juum teen te géej bu neex di Baay Laay santaleen jaliilo li maamu mooy rasoolo janta feeñ ñu doy la yonen ba moo di Baay Laay bàyyi leen di xaar géej bu neex de bàyyi la leen jalilo limaamu mooy rasoolo jant feeñ doy la beneen ba mu mam limaamu mooy géej bu fees di for di baax des di fóot di baax dem ba raw ndoxum teen si ñun ñi woolu baay laa jalila wali maamu mooy rasoola jant feeñ ñu doy la beneen ba lay la la seydi ran ku lay woo danaan la seydi baay laa seydi baay la santa la yonen ba lay la te feeñ ñu doy na yeneen ba lay lay la la Abdoulaye Thiaw abi balaay doomi say yee Abdoulaye Thiaw abi balaay bay Abdoulaye Abdoulaye Thiaw abi balaay bay bay jiin Abdoulaye Thiaw abi balaay doomi say na sanga yaay borom leer sirif nga doomi bay laa solo jant feeñ ñu doy la